Pap Mademba Biteye directeur général Senelec membre TFR task force républicaine hmm. DG ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Makumba ñu ngi lay nuyu di la sant si invitation bi nga may ñu rek ñu nuyu sa auditrices yi ak sa auditeurs yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal ak si diaspora bi ndaxte xam nañ ne seen rajo bi ak émission bi ñu ngi koy déglu fépp ci àdduna bi nga may ñu également ñu nuyu suñu yi. yi nga xam ne ñooy suñu raison d'être te lépp lu ñuy jóg ak lépp lu ñuy taxaw pour ñoom ñoo tax di jaale également Sénégal yëpp si luñ fi am si ay disparition ay kilifa ak ay mbokk ak ay xarit si mbas mi nga xam ne nii sonal na ñëpp di jaale Sénégal yëpp. <laughs> Euh, jàngoro jooju mbas mi ngay wax noonu fi mu ne nii bëri na këru liggéeyukaay yoo xamante ne nii gàllankoor na seen liggéey est-ce que laal na Senelec ci anam boo xamante ne nii mbooloo mi xamuñu ko waaw comme nous ngeen ko dafa wër Sénégal yëpp bu mbas mi président de la république jël décision ñun dañu a PCA plan de continuité de l'activité bi nga ne définir lépp li nga ne personnel pour mais également pour personnel présence bi par télétravail loolu nag dimbale nañu ba nga xam ne amoon nañ ay quelques cas parce que si première vague bi demoon nañ ba am une vingtaine de cas mais ak suñu protocole PCA bi tax na ñooñu bañ leen teel a ba faj leen ba yàlla defal nañu si sutura ba ñëpp wër fu mu toll nii également même plan bi lañu reconduire mu concerne Senelec ak fournisseur Senelec yi nga xam ne ñëpp dañuy am relation ak Senelec taxawal nañ protocole boobu ba yàlla mu ngi ñu si defal sutura daal. Euh, ci wàllu personnel boobu ngay wax am na ci ñoo xamante ne nii ba fi mu ne nii ñu ngi ñaxtu rek ndax régulariser wuñu leen ñaata xeetu contractuel la Sénélec am am na ci ñoo xam ne entreprise bu tudd Lion moo lay indi ak ñoom est-ce que dafa am ñeneen ñoo xamante ne nii bokkuñ ci bokkuñ foofu. non Sénélec dafa jël. li nga xamante ne nii mooy ñu daan liggéey parce que boo xoolee entreprise yu mag yu nekk ci àdduna bi yëpp du ñuy embaucher direct du ñuy jël ay prestataires directement dañuy jaar si lu ñuy wax société d'intérim maintenant société d'intérim yooyu nag ñooy def location de main d'œuvre Senelec bu leen Senelec soxla day adressé wu ci société yooyu ne leen type bi laa soxla ak profil bi pour métier bi léegi bu ko defee société d'intérim bi ci base de données bu mu yore. dem jël ñoo jox Senelec Senelec fay ko société d'intérim bi moo mooy mooy fay nit ñooñu. kon ñoom duñu ay employé Senelec. déedéet du ñu ay employé Senelec amuñ benn relation ak Senelec parce que société d'intérim yi la Senelec signé. Mhm. mais am na ñoo xam ne dañ ne bu ngeen demee bay régulariser au lieu ngeen di jël ñi leen di politiqueal di dugal ci biir ñooñu am na ñu ci gën a xarañ pourquoi du ngeen leen jël. politique euh, de ressources humaines moom du loo xam ne science la te nit ñi dañu war a xam ne société yu mag yëpp. dañu am politique de recrutement politique de recrutement bi mënul nekk lii laa soxla wala lii laa bëgg Senelec daf ma koy defal Senelec chaque année directeur général conseil d'administration bi da koy jox ay objectifs alloué ko budget ne ko lii laa soxla objectif yooyu tamit directeur général bi ñëw wàccee ko ci directeur yi ne leen yow pour ma atteindre lii lii ak lii ak lii laa la sant bu ko defee directeur bu nekk ne man moyen yi laa soxla te si moyen yooyu dina wax en terme de ressources humaines lan la soxla léegi su ko ñu def arbitrage léegi nag munuma ñëw fixer la ay objectif ba pare forcer le personnel mais boo ma waxee ne profil bi laa soxla pour ma atteindre objectif yi profil boobu laa lay jox moo tax du loo xam ne ku nekk da ngay yaakaar ne maa ci war a dugg rek ñu dugal la mais boobu ba léegi nag boo xoolee si yooyu noonu ngay wax ñu ngi def le maximum parce que liñ ci defagum yaakaar naa ne ñoom si seen bopp reconnaître nañ ne amul woon parce que on a créé ay passerelle ay protocole d' accord yoo xam ne dinañ mun a tenir compte si couche yooyu noonu nga wax yépp mais nag en fonction des objectifs que Sénélec s'est fixé loolu daf si am importance mën nañ leen a jël ñoom ñëpp wala mënuñ ko non non mënul nekk parce que boo xoolee benn groupe bi 187 personnes boo xoolee beneen groupe bi 747 personnes ça fait déjà presque 800 personnes or budget personnel Sénégal yëpp de 300 personnes budget de recrutement donc naturellement il faut que nous def un arbitrage et naturellement également dafa ont des postes clés il faut parce que nous avons un directeur qui part à la retraite nga recruter qui BEP parce que kële dem na nga ne da ngay. ñu directeur ngeen di politiquer politiciens yi ngeen di dugal di leen bàyyi la ñu wax. non loolu moom ñoom dañuy xalaat rek mais yaakaar naa ne bu ñu xoolee li seen Sénélec publié si wàllu recrutement ñu def ko de façon transparente ñëpp gis ko war nañ mun a xam ne loolu ay wax la rek yoo xam ne dañ koy wax pour gën ñu ñaax pour gën ñu fàttali seen bopp mais lu ma leen di bëgg a yëgal rek mooy fàttewuñ leen. tant que ñu ngi ci biir priorité Sénélec bu soobé yàlla dinañ leen dugal insha allah. Mhm. lan nga nekk di def jamono bi ngir kër gi dal parce que syndicaliste yi daa mel ni fan yi dégg nañ leen ñu tàmbalee jógaat. non kër gi moom dal na syndicat du ma wax sax syndicaliste parce que man tuddeewuma leen syndicaliste ndaxte bu ma ñëwee dama ne ne vous êtes mes partenaires et boo xoolee c' est l' occasion nga may ma ma sant leen gërëm leen ndaxte bu ma ñëwee ba léegi. personnel bi néna Avancer ma avancé yi ñu fi am sur le plan social gëj na fi loolu nag su ma ko avancé comme lan. sur le plan social mooy récemment def nañ valorisation des salaires récemment valoriser nañ catégorie chauffeurs yi nga xam ça fait longtemps ñu ngi fi woon seen indemnité yi depuis 1980 neuf changé wul secrétaires yi nga xam ne nañ fi ay expérience plus de 10 ans 15 ans kenn laalu leen ñu ñu re ñu ñu ñu revaloriser leen loolu noonu yëpp dama ne suñu ko munee ndamu direction générale la mais ndamu si ndamu partenaires sociaux yi la tamit ndaxte ñoom ñooy mun a dem si seen militants yi ne leen lii ñun ñoo ko indi man maay mun a taxaw aussi ne si sama magistère la lii amee kon man ak partenaires sociaux yi ñun ñëpp ñoo bokk objectif ndaxte seen ndam mooy sama ndam et que loolu moo tax mané amul ben problème té ma ngi len di lancer wat appel di len wax ne comme nuñ ko doon defee nañ ñëwaat ñu tok sama bunt partner na man waxuma partenaires sociaux yi sax mais ñëpp lay recevoir ñëpp lay taxaw waxal té dama gëm né sénélec du ben nit mo koy doxal sénélec mécanique la sénélec système la ñëpp am contribution yo xamné war nañ ko ci mëna def pour mu gën a dox moo tax maa ngi leen di lancer waat appel eh, lu tax mënuñ am problème ndaxte ñoom xam nañ seen warugar xam nañ aussi sama warugar xam nañ loo xam ne nii maa ko moom man it xam naa loo xam ne ñoo ko moom kon mënuñ am problème. Mhm. Pape Mademba bi tey directeur général Senelec membre task force républicaine sa jaar-jaar ci Senelec bu fekkee delluwaatuñ ci ay coupures yoo xamante ne nii ay 2011 2012 li koy gën a marqué ci bopp nit ñi mooy doon Akilee lu tax nga ñëw rek coowu Akilee judduwaat. Maxal ni la nañu euh, renégocier contrat bi ba ci yag ñu ne nañ ko sax supprimer. non nga may ma rek may ñew question bi moy luy a marqué sama point war nañ soulever pour la première fois lek perte machine bo ne gëna amul conséquence.

bokk na ci événement yi nga xamante ne nii ay at mu ngi nii chaque fois Senelec daan na def effort yu mag mais qualité bi daawul doy daawul daj fu nekk ren Sénégal ñëw régler problème boobu. yi ngay wax nii da nga ko fay fekk. déedéet centralu sendu bi da nga fekk ñu defar ko ba muy ba muy dox. waaw ak dinaa ñëw ci centralu sendu bi parce que bëri na lool ay problème moom itam. waaw ak laa bëggoon ñu laal ci tuuti doo ko jàll lan moo tax Macky Sall ni la nga renégocier waat contrat bi. dossier ak li bi moom comme wax nga si lu ma ciy tontu rek lu tuuti la luñ si war a wax yëpp wax nañ ko léegi nag toll nañ si phase bu nga xam ne soxlawul wax si biti maanaam suñu ngeen ñu mayee di si ay fan yu néew dinañ wax li nga xam ne moom lañ réglé mais jamono bii ñu toll ci dossier bi soxlawul wax si biti. jamono bii mooy jamono bi mu nekkee ci kanamu yoon. waaw hmm. jamono bii daal may leen ñu rek di si fan yu néew dinañ wax sénégalais yi dossier bi nan la mujjee. Hmm. mais fuñ si toll nii moom soxlawul ñu si wax ci biti pour parce que ñu ngi si ay tànk yoo xam ne léegi. ñu mun a ñëw sénégalais yi ne dossier ak li bi voilà lii la muccee. Mhm. ja jàmm la mën a doon wala teqalikoo carrément. jàmm lay doon incha allah. bu soobee yàlla may leen ñu rek yaa ngi may bëgg a wax loo ma kumba te nee naa la. fu dossier bi fu mu toll nii wax ci mm-hmm. biti lay bañ. di ci peu de temps rek dinañ ñëw jàkkaarloog sénégalais yi wax leen lu leer ci dossier boobu. waaw parce que dañu déggoon ay kilifa yoo xam ne jógoon nañ doon ci tox ay tànk jàmm ñu ni nañ teggi tànk nit ñuy accéléré ci wàllu yoon est que kilifa yooyu dañoo mujj fexe ba ngeen toog ndax déggoo dina amam déet kay loolu kay DG boo ñu ko mayee rek ñu jàll. waaw loolu kay moom bu soobee yàlla di ci di si ay fan yu néew di ngeen ci xam dara bu soobee yàlla. Mm-hmm. ñu ngi ci biir euh, waxtaan wi. li leen jotale woon mooy mbiri compteur ndax jamono bi ku bëgg compteur Senelec di nga ko am. waaw dégg naa wax boobu sax waaye xam nga comme nu may wax rek partenaires sociaux yi dañu nekk seen rôle jamono bi yaakaar naa ne bu ma xoolee tableau bi ma kii service yi jox Senelec compteur am na fi maintenant nit mun na demander compteur. procédure mais bu ñu xoolee disponibilité compteur yi nekk ci suñu stock man mënuma considérer que am nañ rupture maintenant nga demander ce compteur ñu jox la ak toute la procédure qu'il faut respect des délais loolu war na mun a am mais amuñu problème au compteur. ñaata compteur ngeen am fi ne ma liiral la rek bu ma par exemple luñ ma wax fii. Au compteur Woyofal triphasé à coulou prépaiement, on est à 1412 compteurs. Nous faut déjà dans le stock. Triphasé, mooy lan bu rëy bu yàgg ba. déedéet mooy clients yi nga xam ne ah ok donc mu ngi on a des compteurs Kaifa monophasés pour l'éclairage public 4800 donc on a aujourd'hui ay compteurs Exim 1153 1050 compteurs monophasé Exim. Recycler 4125. Mmh. Hmm. Non, nous avons dit Mais nous avons dit fan la nit laaje compteur te joxuñu ko mais ñu ngi joxe ñu ngi def suñu abonnement hmm, normalement te légui aussi lu may wax C'est ñun si une vision stratégique Nous, ñu ñëwé un appel d'offres et l'appel d'offres c'est pour 420 000 compteurs et la première livraison 30 000 compteurs Et nous ne fii le 15 février dina ñëw kon donc ba may rassurer suñu client yi rek wax leen ne problème amul léegi nag difficulté ak niveau de stock yi mun na dem niveau boo xam ne nit ñi mun nañ yaakaar ne dafa am problème mais lu ma leen di rassurer lu ma leen di wax que mooy compteur amul problème de compteur amul. mais normalement fu ko nit mën a laaj rek dañ ko ko war a jox. c'est le cas. waaw da nga ni am na ñoo xamante ne ni ça dépend de fi ñu ko laajee. déedéet dama ne la. Hmm. soo ma waxee ne nit fu mu ko laajee ma ne la danga may wax fan la ko laajee. te amu ko te amu ko. Uh-huh. comme ça ñu mun a xool lan moo tax ñu saafara ko. Euh, appel d'offre bi ngay wax mooy bi entreprise israélienne yi gagné woon. déedéet mais boobu entreprise chinoise bu ñuy wax Exim moo ko gagné. Mm-hmm. appel d'offre international la woon. mais léegi bi ngeen jëlee. mi ngeen euh, teqalikoo ak euh, waa Akilee jox ngeen fi beneen entreprise mu dem utali leen compteur ndax compteur yi mu leen indiloon moo gën a yomb yi leen Akilee jëndaloon ba tegal leen ko ba noppi ngeen bañ koo jël. waaw si si prix bi moom moo gënoon yomb parce que yële ñu ngi ko doon jëndee quarante huit mille francs et bii nii bu ñu xoolee prix compteur bi c'est trente six mille francs l'unité. Hmm. même même même capacité yi la ak ñële liñ digge woon ak yëpp. non xam nga wàllu compteur. dafa mel ni sa auto bu auto bo mun nga am sa auto nga ne man option bi la si bëggu option bëlé la si bëggu option mais constructeur bi légui nak option boko laaj rek mun na la ko si defal mais l'essentiel moy yow yow yaay xol auto bi nga bëgg lan nga si jublu ak ban niveau de confort nga si am nga commander lool constructeur bi defaral la mhm. wa euh sen xaliss bi akili bloqué ci banque bi wul gàllankoor ci sen doxine dedet déedéet loolu indiwul gàllankoor ci suñu doxin. Mhm. centrale sendu bi yang ko don wax léegi ñew nga courant coupé Sénégal centrale bi dem téréwul ñëpp am courant mais centrale bi amna problème parce que dafa non ngeen dem jëli Turquie yi ñu war ko remplacer ci walu production digënté bi mu dépanné waat ngeen ko duñ la branché waat te yeen bokkon ngeen ci ñi nga xamni yeen euh, luñ ci defoon ba ak accord bi nga xamni am ngeen ko ak ñom lutax bi centrale bi baxaté nangu leen mu ci production bi. Je voudrais ma la ma vision de son excellence monsieur le président de la république le premier conseil des ministres Djurbel 2012 il fait fi de l'estage il a tar daf développer mix énergétique mix énergétique bobu dafa am ñaari objectif objectif bu de bi moy ñu am capacité de production yu doy beneen bi mooy ñu dem ba wàññi tarif bi mix énergétique boobu nag capacité production yi day boo ko xoolee fu mu toll nii yokk nañ production bi ba nga xam ne comme lu wax si meilleur standard yi bu benn machine paane warul mun a tax ñu yàq qualité de service bi et léegi xam nga bu njëkk ba dañ daan wax autour de 500 mégawatts mais léegi ñu ngi si presque 1500 mégawatts donc Senelec tollatul contrainte boo xam ne boo koy fàttaliku jamono GTI yaakaar naa ne yaa ngi koy fàttaliku bu ñu la daan wax benn machine panne na moo tax ñuy coupe client yi mm. mais jamono bii ñu toll ñu am machine bu gën a rëy bu génn ci réseau bi pendant plus d'un an amul problème ci qualité de service maanaam vision boobu président waxoon fu mu toll nii matérialiser nañ ko pour que énergie bi doy fu nekk et donc loolu bu mu amee nag machine bi panne ñu wax suñu partenaires yi parce que ay privé lañ boo demee jëli privé nga garantir ko njëkk am na risque yoo xam ne yow muy jënd doo ko jël risque bu si njëkk en terme lu ñuy wax mooy que ni moom moo war a garanti machine am taxaw moo war a garanti machine am di daw léegi nag loolu su amee problème te léegi damay li ne sénégalais yi miinal nañ leen qualité de service boo xam ne mënatuñ jël risque di ko perturber maanaam booy fàttaliku heure de coupure yi dans nañ presque ay 911 heures de coupure par an les bo xolé ci statistiques yi ñu en 2021 en 2020 on est autour de 8 heures de coupure par an et par client donc lu ko waral moy amuñu capacité bu doy mm-hmm. Mm-hmm. yu bess la lu ko waral moy xam nga rek nañ production bi mm-hmm. légui de dañuy ñëw ci réseau réseau bi réglé guñ yëpp. ay panne lay doon. waaw moo tax ñuy am quelque coupures. Mhm. léegi nag bu loolu amee machine bi panne xam nga machine bu panne at at ñëw ne la pare na. Mhm. parce que ñu nit ay ingénieur lañ jàng nañ balaa ñu koy dugalaat si réseau bi am na ay garantie yoo xam ne soxla nañ ko ndax travaux yu nga waxoon def nga ko ban entreprise moo la ko defal wan ñu attestation yu wan ne taxaw nañ et assurance yi nga xam ne centrale bi daf ko soxla pour tourner te loolu ñëpp a koy exiger ndax assurance yooyu renouveler nga ko poste bi nga xam ne mooy jël courant bi di ko dugal biir Senelec ndax poste boobu nekk na au point donc question yooyu yëpp ñu laaj amaguñ ci satisfaction léegi nag moom la ñuy xaar promoteur bi jox ñu parce que bu duggee si réseau bi ne dugg si ne tëll paan ma am fi black out xam nga dama su ma ñëwee ne la séndoo tax doo doo ma doo kii. Hmm. donc dañuy ñëw si layu 2011 yu ñu daan yu ñu daan wax. léegi nag ñun en tant que société d' électricité responsable xam métier bi tamit am na minimum boo xam ne lu ñuy laaj suñu groupe yu nekk si suñu parc. bu ñu polaa ñuy dugg si réseau bi moom lañ ko laaj léegi bés bu ko indee ñu kii mu continuer donc mais amul benn problème. moom ñaata la leen daan jox cent quinze mégawatts. cent quinze mégawatts moo ne moo nekkoon centrale bu gën rëy mais fu mu toll nii remplacé nañ ko par bateau bi nga xam ne. aujourd'hui mu ngi ñuy jox cent vingt <laughs> léegi euh, ñoom ñaata ngeen leen amel ci xaalis fi mu ne nii waa centrale Sendou bi. bu ñu xoolee lu luñ leen yoreel ak ñoom luñ ñu yoreel ñu def balance bi ñoom ñoo ñu yoreel soixante six milliards. yow yaa leen yoreel soixante ñoom ñoom ñoo ñu yoreel soixante six milliards. ndaxte jënd ak jaay dafay am danga ma garanti lii man lii laa lay fay boo ma ko indilul. y ay pénalité yu ñu lay pénalité nak war nga mëna comprendre mako kumba centrale bu doxul depuis le 19 juillet ak centrale bo xamné ñu ngi koy xaar depuis 2008 mu ñëw le 18 octobre 2018 le 19 juillet 2019 mu tombé en panne donc xam nga né Senelec lu mu ñàkk bëri na ci té loolu nak heureusement contrat bi que ne ne bu centrale bi doxul ba Senelec obligé dem di uut yenen machine pour remplacer promoteur bi dafa war a fay ay pénalité mhm. est-ce que yaakaar nga médiation bi nga xam ne fi mu ne nii ñu ngi koy dox seen digg ak ñoom fu ci mel ni Belgique mu jur jàmm ba ngeen juboo Senelec lu ma lay wax nous sommes ouverts te central bi dañ soxla nañ ko ba léegi waaye nag am na loo xam ne mënatul nekk parce que damay fàttali ne jamono bu ñuy gën a ndaw si biir Senelec lii bu amaan lépp lu promoteur bi waxaan Senelec day nangu ndaxte délestage dina tar ci population bi ba nga xam ne lépp luñ ñu teg ñu ñu ñu ñu nangu ko waaye nag léegi jamono soppeeku na wax dëgg yàlla comme nu ma PCA di wax xale yi màgg nañ am na loo xam ne lu seen kilifa yi daan nangu ñoo mënatuñu ko nangu. léegi nag ñun wax nañ ne su ñëwee indi qualité yoo xam ne nii moom la ñuy xaar si moom ñun amuñu problème dinañ ko jël. waaye nag bu ko amul ne dinañ xool nu muy def maintenant bu ñëwee jox ñu assurance damay fàttali pour ñëpp sénégalais yëpp dégg ko ne actuellement am nañ douze société yoo xam ne comme Sendou la mais séndu rek moom moo ci am problème parce que moom la centrale am panne yeneen onze société yëpp ñu ngi liggéey courant di ñu jaay ñuy jënd di leen fay amuñu benn problème ak ñoom ay Taïba Ndiaye ak Mérina Dakhar ay Taïba Ndiaye Mérina Dakhar Kounoune Pawo Tobène Pawo ak Manantali ñooñu ñëpp ce sont des producteurs indépendants. Mhm. donc ñu ngi ñëw di leen wax ne ñu ngi ñuy jaay courant ñuy jënd di fay mais maintenant nag koo xam ne joxu la ba pare bëgg nga jox ko xaalis dëgg-dëgg loolu clients yi amuñu joxuñu xaalis boobu. est-ce que du ngeen dem ba nar fee fayloowaat sénégalais yi xaalis bu bëri buñ leen yóbboo bitim réew ci ay euh, cours d'arbitrage ak yu mel noonu parce que ñoom ñi ngi ci mu waaj fi mu ne nii ci man xibaar yi nga xam ne am naa ko ci nii pour euh, attaquer leen ci yoon te avocat yu mag lan fas yéene jëli. ñoom nu mun a utee avocat yu mag noonu la Sénégal mun a utee avocat yu mag te damay fàttali rek ne am na fi benn société boo xam ne jéemoon na loolu effectivement ñu dem fa mais bu ñu demee jox nañ Sénégal dëgg waaye tamit. damay yaakaar ne lu xel mën a mënul nangu mooy depuis ñaari at tourné wu ma ba pare ne la fay ma cinquante cinq <laughs> milliards loolu xaw ma xaalis boobu fu ñu ko mën a jëlee ak nuñ ko fabriqué en tout cas bu ñu xoolee nee naa la bu ñu defee balance bi jamono bi Senelec moo perte soixante moo koy réclamé soixante six milliards. ñoom léegi te am nañ fu ñu ko teg. ñoom ngeen remplacé bateau turc bi. barge bi. bëri na lool ci condition yi ngeen signé ak ñoom yoo xamante ni nii leerul bëgg naa wax dëgg yàlla jotaay bi may sénégalais yi ñu gën a xam lan moo xew ci contrat boobu mais d'abord première question ci barge bi ma euh, remplacer gi ñu remplacer centrale Sendou bi est-ce que moo gën a yomb wala moo gën a cher li ngeen di fay foofu. centrale Sendou bi centrale charbon la bateau bi centrale la boo xam ne jamono bi mu ngi dawee fuel donc mënul gën a cher. Euh, mënul gën a yomb centrale charbon bi loolu nañ ko wax mu leer. bateau moo gën a cher centrale charbon bi. Hmm. mais bu ñu xoolee ñàkk jox courant sénégal yi. loolu kilowatt heure bu nekk bu ñu joxul commission de régulation day pénaliser Senelec mille francs te bateau bi jamono yi ak prix combustible yi ñu am prix bi mu ngi ci autour de 66 francs donc du benn. Hmm. donc oui, bateau bi moo gën a seer bi mais bu ñu xooloon ne suñu joxul courant sénégalais yi lu ñu commission di pénaliser ak problème sociaux yu mu nar a indi ci dëkk bi du amuñu ñàkk solution si loolu moo tax contrat bi prévoir ne sendu su ngeen joxul sénégal courant ba sénégal obligé dem outil lu ñuy wax énergie de substitution da nga war a fay Senelec ay pénalité léegi bateau bi moom cinq ans la fi toog cinq ans yi par force day fournir bado bi cinq ans la fiy toog ndaxte damay wax ne xam nga ñu ngi jëm si perspective gaz yoo xam ne dina jóge si Sénégal léegi nag si xarañte technicien sénégalais yi te maa ngi leen di gërëm fii di leen sant non seulement négocier nañ loolu si délai bu tuuti ndaxte wax naa la ñaari ñaari weer ñu installé deux cent vingt mégawatts alors que bu doon centrale sur terre loolu quatre ans lañ koy def ñoom ñu def ko si ñaari weer. mais également ñom ñu xalat ne comme gaz baa ngi ñëw war nañ mëna trouver solution bo xamné dinañu anticiper gaz bobu di ñew té loolu lañ def actuellement ak Turquie bo ñëwee au niveau du port maa ngi le DG du port ndax nu ñu yombalé affaire bi participer ak ñun si yépp ñu ngi installer pipeline yi nga xamné inshallah fi ak le mois de juin centrale bobu dina mëna dox au gaz donc prix buñ doon jëndee aujourd'hui 66 francs dina gën a wàccaat. juin bii nii non avril bii nii incha avril 2021 bii centrale bateau boobu dina dox au gaz. Gaz gazu Sénégal wala. non gaz bu ñuy importer muy LNG. Hmm. donc dina gën a moins cher que fuel bi. Hmm. et mieux encore ingénieur sénégalais yi négocier ak ñoom pour centrale Bel Air bi nga xam ne à côté la nekk ñu mun ko joxaale gaz donc bateau bi dinañu permettre non seulement remplacer nañ sendu maintenir nañ qualité de service pour les clients yi ba mais aussi anticiper si gaz Sénégal bi nga xam ne former suñu personnel convertir suñuy machines. ba nga xam ne bu gaz bi yegsee dinañ pare ni ko président de la république santé ndaxte damay wax ne au début nous ñu waxoon régler leen problème production bi mais nous ngeen wàññi également de courant et aujourd'hui luy wàññi njëgu courant bi ci processus boobu lañ nekk liggéey machine yi ba nga xam ne bés bu gaz bi ñëwee prix bi gën a yomb loolu noonu mu nekk ay économie yoo xam ne régulateur bi dina ko mun a def dina ko mun a soppali ci prix bi ba nga xam ne consommateur bi dina ko yëg. léegi euh, loolu yëpp ñoom lay war walla yéen lay war bu gaz bi ngeen ci war a def bu ñëwee. ñoom lay war. Hmm. ndaxte dama lay wax toujours ne lu ñuy négocier ak promoteur privé yi mooy lépp lu nga xam ne. mooy jublu si wàllu togg courant bi ñoom seen responsabilité la donc ñoom dañuy togg rek ba pare jaay ñu ñun ñu utiliser ko. léegi euh, sendu ñoom nee nañ pare nañ mën nañoo dem. ngeen laaj ay garantie nee nga joxuñu leen ko. li ngeen di fay fay moo gën a cher mais lu tax du ngeen risquer sendu payor bi wàññi ko. waaw mun naa munoon naa ko risquer de su doon bu bu ma ko dugalee bu machine bi déclenché ma am fi ñaari fan yoo xam ne mënu ma jox Sénégal courant su boobaa su ma ñëwee fii doo ma attaqué te c'est pas responsable man ma ñëw parce que matière euh, électricité dafa am lu ñuy wax ay pratique ay pratique de l'industrie mooy boo jógee si lu ñuy wax paan bu mag dafa am loo xam ne da nga koy wane comme preuve ñu soog la mun a wax ne mun nga ñëw mu ngi mel ni rek ngay recruter nit war ko dugal sa kër kër gi nii di nga xool CVM di nga xool fu mu jaar di nga xool ndax lii na nga am présomption ne lii baax na nga ñeme ko dugal mais boo amul présomption boobu nag doo mun a jël risque boobu surtout que léegi xam nga ne wax dëgg yàlla depuis bu président Macky Sall ñëwee ba léegi sénégalais yi tàmmal nañ leen qualité de service boo xam ne soo ko yokkul mënatoo ko wàññi donc am na yenn risque yoo xam ne Senelec mënatu ko jël. courant bi nag Ndakaaru rek la dal de dinaa ci dellusiwaat ci kanam tuuti mais boo demee ci kaw gi yow fa nga dëkk ma dëkk fa. xuyu kamat gi ba tim na ni maar imsi mais question yi ñuy wax ni CRSE moom amu ci son mot à dire. CRSE c'est le régulateur. bi nga xam ne moom mooy. gendarme par exemple seen diggante ak seen yoonam newu ci. non bu ko benn parti saisiré. Hmm. CRSE mun na si dox jàmm. loolu mooy rôle mais tant que c'est dans le cadre bu ñuy wax. Hmm. ñu ngi ñu ngi exécuter relation contrat bu ñu liggéey loolu CRSE amu si soxla li nga wax nag. am na importance ndaxte damay fàttali ne président Macky Sall bu muy ñëw daf ñu waxoon ne na ngeen régler problème disponibilité wàññi courant bi léegi régler nañ disponibilité bi ndaxte wax dëgg yàlla courant am na fu nekk et ñu ngi avancé mais si yéene bu mu amal Sénégal daf nañu léegi nag dama na ngeen wàññi courant bi mais bëgg naa mu yegg fu nekk ndaxte équité territoriale ak justice sociale dafa am si moom importance moo tax ñu entamé programme bu mag. bi nga xamantene ni, nii mooy matérialiser sa vision si équité territoriale ak justice sociale maanaam sénégalais. fépp fu mu yegg fépp fu mu yegg na am courant mu nekk si kaw gi mu nekk si taax bi muy programme d'accès universel en 2025. bi nga xam ne moom foofu la ko buggee. Mm-hmm. te damay wax ne Nations Unies 2030 la wax mais moom daf ne gëm na ne Sénégal mun na fa yegg en 2025. mille démb rek def nañ réunion ak les experts de la Banque mondiale wax nañ ñu ne ñoom gëm nañ ne Sénégal mën na ko atteindre en 2025, mille ndaxte vision bi leer na portage politique bi taxaw na programme yi taxaw nañ et budget bi mun nañ ko mobiliser facilement ndaxte léegi Sénélec banque yi wóolu nañ ko président teg na ko raay bi lu si des rek mooy dawal pour yegg accès universel en 2025. accès universel en 2025, courant bi daj fépp ci Sénégal dëkk boo dem mu am courant euh, ak euh, at loolu Sénélec lan lan moo ciy ak lan moo ciy parce que ñu bëri bi ñu ni yaay ñëw. woote nañu wax ni nañ leen dimbali nga wax leen gindi leen ci lu leer seen yi 5 kilomètres dox té duñu mëna fexé ba jot courant wala poto bi jaar ci seen dëgg dëkk bi ñu gas ko ci seen buntu kër yi té duñu am courant. waaw loolu moom mooy lu ma lay wax Macoumba président def na 2025 ñu atteindre accès universel ñëpp am waaye nag ñu ngi démarrer programme bi mënaguñ yegg fu nekk parce que bu lépp xaalis bi yëpp taxawoon fu mu toll nii sax amuñ entreprise yoo xam ne mun nañ ko liggéey ci benn at moo tax ñu def lu ñuy wax programme te programme boobu nag. moom laay wax souvent su ma demee si yenn dëkk yi dama leen ne ñu ngi commencé bu bu bu fii li jaaree seen diggu kër ça veut ko war na leen leer ne di ngeen am waaye nag kuy commencé il faut nga am foo tàmbalee il faut nga am foo jeexale mais lu ma sëriñ bi waxoon rek daf ne ma DG ku xiif daal tant que waxoo ko ne bool bi tegu na loo ko wax du ko dégg waaye tamit ku xiif war na mun a nangu moom mu ne ma ne pour bol bi tegu il faut ñu togg te togg dafa am temps bu mu laaj pour mu mun a neex donc loolu moo tax ñooñu noonu souvent message bu ñu leen di jox mooy président lu ñu sant leer na. ñu ngi ci ñu ngi ci non non yàggatul parce que nee naa la euh, Nations Unies 2030 la wax président ne na ngeen fexe ba def ko 2025 bu mu koy wax ñu bëri am yaakaaroon nañ ne du taxaw mais bu ñu xoolee bon yi ñu def ñu projeté ko ñëpp xam nañ ne loolu suñu porté la léegi nag. ñu ngi corriger ñu ngi def lu ñu lu nga xamante ne nii lu taxaw la mais fu mu toll nii le temps ñu yegg si fa moo tax ñu leen di wax ne nañ ñu muñal te damay rappeler rek lu ma góor gi waxoon daf ne ma soo gisee ñëpp di laaj c'est parce que gëm nañ ne yéen a ngi joxe waaye su ngeen joxewul woon Sénégalais yi am nañ fayda boo xam ne kenn du leen laaj donc loolu daf ñuy gën a ñaax gën ñu jox courage pour ñu continuer xam ne ñu ngi tegu ci yoon bi maintenant wax nga yeneen parti ASER PUDC yooyu yëpp ay programme complémentaire la ndaxte boo xoolee Sénégal nu ko ñu ko tasee dafa am périmètre boo xam ne Sénélec moo ko moom am périmètre boo xam ne concessionnaire d'électrification rurale yi ñoo ko moom donc Sénélec lu muy def ci périmètre am la ASER lu muy def ci périmètre concessionnaire li la comme des fois mun na def ci programme Sénélec PUDC aussi ñëw Donc, nous avons un programme complémentaire Madame Sénélec d'ici par exemple je naa la jox chiffre d'ici 2023, Sénélec dina électrifier 2540 localités damay fàttali président Macky Sall en 2012, 1648 localités ñoo courant Sénélec en trois ans va faire 2540 localités pour wax rek ne programme yi taxaw vision bi taxaw na mécanisme yaa ngi fi moyen yaa ngi fi le soutien politique également est là ndaxte daf ñuy fàttali toujours fu ngeen toll ci électrification rurale bi na il faut pas saupoudrer na ngeen fexe ba ñëpp am courant pour que 2025 dëgg-dëgg Sénégal ku mu neexul rek yaay bañ a am courant waaye dina tas définition des périmètres nan lañ ko délimiter Sénélec fan la war a yem. ak euh, ASER fan la war a tàmbalee yem fan PUDC ak ñeneen yeneen yeneen intervenants yëpp waaw loolu moom réforme 98 bi la woon moo définiroon Sénégal jox Sénélec périmètre am yi nga xam ne mooy village yu ñu électrifié On ak fu mu yemoon li des ci Sénégal ñu diviser woon ko en 10 concessions concessions yi par exemple boo demee au nord di nga fa fekk marocain yi Comacel ñu am ñaari concession nga ñëw Mbour di nga fa fekk tunisien yi nga dem Kaffrine Tamba Kédougou di nga fa fekk français yi avec ERA donc noonu lañ ko tasee woon mais léegi nag. gouvernement baa ngi si def effort ndaxte wax dëgg yàlla boo buggee yegg deux mille vingt cinq comme nu ma wax privé bi buñ koy oo mu ñëw c'est parce que dañu soxla mu def lu ëpp li ñu mën mais su dee nag mënu ko en ce moment ak objectif yu gouvernement bi am on est obligé de prendre des mesures moo tax ASER des fois bu defaree yenn village yi xool ne concessionnaire bi mënu ko exécuter mu wax Senelec exploité ko ndaxte léegi sénégalais yi pour région yu nga xam yëpp

ndaxte président loolu la bëgg sénégalais yi mënatuñ xaar te gëm nañ ne mën nañ ko réaliser moo tax dañuy dem rek. Mhm. voilà. Euh, bëggoon naa ñu dellu si ci production sànq parce que ubbi woon naa parenthèse foofu mais dafa tëjuwaat euh, mooy euh, <clears throat> centrale bi ngeen sant Samuel Sarr mu ànd ci ak ay partenaires indi ko 230 milliards. moom itam bu boobaa gaz lay doxee yaakaar naa mooy doon centrale bi njëkk doxe gaz intégralement fii ci Sénégal mais coow li bari na ci est-ce que amoon appel d'offre waaw damay wax ne loolu aussi dafa nekk beneen vision boo xam ne président da ko am ndaxte production indépendante yu ngay wax gis nga centrale yu ma lay cité nii yëpp amul benn sénégalais aujourd'hui am nañ benn promoteur boo xam ne mooy kunun moo moom Tóobén moo moom Malicounda bii ñuy defar Makumba bu muy soog a ñëw dañu wax ak moom. ñu ne ko yow yaa ngi bëgg a ñëw mais mosoo defar central mu ne waaw mosuma ko defar waaye am naa moyen yoo xam ne mun naa ku koy defar am naa moyen yoo xam ne mun naa am ñu koy exploiter bu baax aujourd'hui mu ngi defar ñett central central la gagné fii mu ngi si un peu partout en Afrique léegi nag président si vision muy kan kooku muy muy kunun paawa ak Toben ak Toben paawa ak Malikunda mm. Mm-hmm. est Matelek ñoo ko moom mm-hmm léegi nag président si vision xool né au début dañu waroon rapidement résorber gab bi maanaam installer ay machine yu nga xam ne mu dem uuti ñu ko mën mais léegi nag bu ñu ba am suffisamment de capacité mu kat war nañ si mun a dugal privé national bi muy local content contenu local ñëpp dégg nañ ko maintenant boo buggee dugal privé national bi ma kumba est ce que da ngay ñëw ne léegi da ngay lancer appel mbur ñu fi mo suñu ko def mais yaa ngi fàttaliku lu ma bi waxon mënuma ko mais mën naawti ñu ko def hmm. te légui IPP yi toujours ñaari appel d'offre lay am benn bi ñëk bi moy da ngay tànn promoteur bi deuxième appel d'offre bi moy promoteur bi pour pour défar centrale am day lancer appel d'offre appel d'offre bobu muy lancer moy day wax ñu mëna tabax centrale parce que promoteur bi xam nga du tabax léegi bu lancer appel d'offre nag pour ñu mun a tabax central. foofu la enjeu bi nekkee léegi ñun suñu buggee def ay contenu local si production dañuy jël ay sénégalais mais sénégalais yooyu par transparence ñoom dañoo lancer un appel d'offre pour ku mun a construire central bi léegi bu ñu lancer appel d'offre international amoon na ay espagnol yu soumissionné amoon na ay turcs yu soumissionné amoon na société euh, espagnol turc ak xaw ma société bi mais buñu ñu dépouiller gagné et jamais fàttali appel d'offre bobu banque bu financer centrale bi bala muy nangu génnee xalissam analyser na appel d'offre bi xol ndax lepp c'est transparent ndax jaar na yoon ba paré soog si joxe avis de non objection kon donc transparence bu nit ñi di wax mu ngi fa parce que appel d'offre bi amna maintenant nak premier appel d'offre bu ñu am moom lañ deful ndaxte boo buggee jox Sénégalais yi pour la première fois tu es obligé nga jox leen mais ñu imposé leen ñu lancer appel d'offre boo xam ne ñëpp gis nañ et prêteur bi bailleur bi valider na ko balaa mu siy dugal xaalisam. non non international la wax. Hmm. appel d'offre international pour construction centrale et et lu ma la a wax mooy lu ñuy wax transparence mooy aujourd'hui centrale bi boo ñëwee Cap de bis liggéey bi tàmbale na centrale bi buñu ñu xoolee délai yu ñu daan am pour pour lu ñuy wax phase de développement ndaxte booy tabax central yu mel noonu day am phase de développement da nga daan gis ay phase de développement yoo xam ne ay 3 ans lay duré bii nii en 6 mois on l'a fait on l'a respecté et liggéey bi commencé na au niveau de Cap de Biche et puis aussi prix bu ñu am c'est quarante pour cent moins cher que prix yu fi nekk. mais xam nga Samuel Sarr mooy tey xelu sénégalais yi ci mbiru courant ndax ku am fitu gaare fii ab bateau le fuel ba ndox indi ko jaay ko sénégalais yi buñ la naree dugalaat ci courant bi nit ñi duñ la ñeme. waaye nag dama lay wax rek ne loolu bon man mënuma ci wax dara waaye jamono bii si wàllu courant yaakaar naa ne Sénélec toll na si expérience ak niveau d' expertise boo xam ne waxuma ne mënuñ ñu si nax de waaye du yomb nag ndaxte bu ñu xoolee bu njëkk ba lu si bëri dañ daan jëli sax ay consultant ñu ñu koy defal. waaye personnel bi am na xarañte boo xam ne léegi lu ci bëri ñoom ñoo koy defal seen bopp et dossier bu ñu présenté day nekk dossier boo xam ne lu ñuy wax dossier bu bancable la chaque fois bu ko banque yi xoolee dañ naan lii baax na lii ñeme nañ ci dugal seen xaalis damay fàttali rek ne secteur bi bu président Macky ñëwee ba ak léegi presque mille deux cent milliards dugal nañ ko si et loolu bailleurs yi duñ ko nangu si secteur boo xam ne rentable bailleurs yi duñ ko nangu si secteur boo xam ne compétence nekku fa kon donc avancé nañ avancé boo xam ne bu ñu focaliser wu nit ñi nañ xool lii nii ñu nar a jëli lan lay jëriñ Sénégal ak lan la leen mun a apporter et yaakaar naa ne ñu ngi teg brique par brique. pour que vision bi nga xam ne moom la président am ci secteur bi dinañ ko réaliser incha allah. Mhm. Euh, ci wàllu compensation bi ma fàttale ni ñu ngi ak Pape Mademba bi tey directeur général rek membre TFR. task force républicaine. Euh, dina ñëw sax ci wàllu politique bala ñoo jeexal émission bi mais compensation yow ñaata nga ameel gouvernement ak gouvernement ñaata la ameel parce que nangu nga koo def sànq ci sendu laajoon naa la ko fi nag cim ndaje na nga tontoo woon moom dallu woon xel dara. waaw diggante Senelec ak gouvernement bi moom lu may wax rek moo ci nekk Séné eh, eh, gouvernement bi moom moom Senelec actionnaire cent pour cent même su dee waaw même su dee CDC am na si neuf virgule quarante deux pour cent CDC gouvernement beeku moom kon donc mun nañu wax ne gouvernement Sénégal moom moom Senelec. waaw mais xam nga bu dee société anonyme de droit privé boo tontoo nii mën waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw damay du introduire rek loolu nag. boo ko xoolee damay wax ne diggante gouvernement bi ak Senelec mënul am bor ndaxte lu xaw ma nu ñu koy waxee ci olof principe des vases communicants la dañuy toll jamono boo xam ne Senelec ay yoreel gouvernement bi ñu toll jamono boo xam ne gouvernement bee yore Senelec kon yow jamono bi boo ñëwee ci moment boo xam ne Senelec a yoreel gouvernement bi da nga naan loolu moo taxaw boo ñëwee ci jamono boo xam ne Senelec mooy rek donc mais lu l'essentiel mooy. que ni chaque fois aujourd'hui Senelec son projet gouvernement bi taxaw na ndaxte ba léegi garantie le gouvernement bee koy jox ma jox la exemple rek négocié nañ récemment contrat de 118 milliards avec SAR boobu noonu ñu ngi ngi ligne avec la banque islamique de développement c'est l'état du Sénégal moo ñu jox garantie bi nga xam ne moo tax bidd defal ñu ligne boobu nga xam ne léegi problème facture SAR yëpp dañ koy régler et donc. boo xoolee loolu situation bu ngay wax ça dépend moment moo tax man nanguwuma chaque fois bu ñu may interroger ma naan gouvernement bay yoreel Senelec wala Senelec moo yoreel gouvernement. boo ko nanguwul nag day nuru manque de transparence déedéet parce que chiffres yi leer nañ jamono boo toll. chiffres yi dañuy leer. waaw bu leeree lu tax duñ ko mën a joxe. waaw parce que damay bañ jox la situation jamono boobu. Hmm. ngeen jël ko pour pour lu rek yow lu xool nuñ ci def. pour pour non non loolu laay bañ su ma ko joxee jamono bi nga wax ne lii la. Hmm. mooy continuer alors que changé na ëllëg wala lendemain mun nañ toog fii nii tey. actuellement ñu ngi négocier gouvernement baa ngi ñu war a jox xaalis bu ma la waxee fii léegi bor bi temps la suba lële dugg mu inversé wu ñu amaat problème mais damay wax rek ne. bu ñu c'est grâce au soutien de son excellence monsieur le président de la République aussi wax nañ production mais bo xolé projet ligne le président bu dans sa vision moné, production bi ma jox ko privé yi autoroute électricité yi ñu jël en charge et tout ça c'est des programmes des financements importants que le gouvernement bi mo ñu ci soutenir. 2019 gouvernement a def 125 milliards 2020 ñaata la ci def les 125 milliards yooyu du subvention loolu dafa nekk loo xam ne gouvernement bee ko yore loon fay ko ko donc du subvention. 2020. 2020 aujourd'hui bu ñu xoolee hmm. situation bi da may wax ndax compensation la da may wax ndax garantie la xam nga. chiffre hmm, yow yaa may wax déjà waaw léegi lu ma la mun a wax mooy 2020 actuellement ñu ngi négocier le ministère de l'économie et des finances Sénélec y ay chiffres ministère finance budget. Ah, des finances et du budget Wow. Sénélec indi ay chiffres ministère bi chiffres nous sommes confrontés. chiffre pour 2020 mille SAR confrontés. nous sommes confrontés. nous SAR confrontés. nous ñu waxtaan ñu teg chiffres yëpp ñu ne lii nan lañ koy régler ñu xalaat ñaari équipe yi yëpp toog yàlla dimbale ñu ba ñu trouver benn solution. ñaata ñaata mun naa wax ne fu mu toll nii. Hmm. facture échue. Hmm. Senelec yorelul Saar hmm. maintenant nag si encours bi hmm. comme dañ ñuy jox ñuy fay en soixante jours hmm. am na encours bu fa nekk mais en terme de facture échi ak dernier virement bu ñu def moom laa la bëggoon expliquer ligne bu ñu bidd jox moo tax léegi facture Saar yëpp la ñuy mun a fay mais ñoom amoon nañ ay jafe-jafe fan yu mujj yi rawatina ak euh, avant Serigne boobu di dem euh, est-ce que yooyu mi ngi mi ngi wàcc ndànk-ndànk approvisionnement bi correct na waaw léegi moom wax plan yeesal nga fi fekk Mouhamadou Mokhtar Cissé moom nga fi wuutu moom la fi euh, tegoon plan boobu mooy wéy ba léegi ba kañ. plan bi jeex na 2020 parce que cinq ans la woon plan stratégique la woon léegi ñun actuellement defar nañ benn plan stratégique bu bees boo xam ne mooy war a dem 2021 2025 ñu ngi si taxaw te boobu objectif buñ ñu si visé mooy def Senelec société boo xam ne day performante dem innovation mais utiliser aussi les énergies plus propres ndaxte mix énergétique président daf si tenir compte. malheureusement foog ñu tabbi ci question politique yi parce que waxtu wi dab nañu te jeexaluma woon ci wàllu Senelec euh, task force républicaine. Hmm. loo ci wuti. xam nga dañu suñu gëm-gëma ah, te loolu sax mun naa wax ne en 2017 bi may jóg loolu moo ma yëkkati woon. ndaxte dañoo dama toog xool gis ne dëgg-dëgg am na koo xam ne mu ngi liggéey mu ngi def lu mu mën mais xëj na ñun ñëpp war a jàpp puus te jamono boobu wax naa la sa vision nu mu leeree si wàllu politique ma gis ne lii mu nekk nii kat buñ ko si jàppale xëj na mun nañ dem fu sori ndaxte rappelé naa la délestage yi fu ñu jógee woon fu ñu jëm mais surtout lu ma gënoon impressionné si nit ki mooy vision bu mu ci amoon. Hmm. ak volonté bu mu amoon pour réaliser ko. Hmm. donc ma jóg ne kii nañ ko jàppale. donc aujourd'hui bu ñu xoolee lu ñuy def yëpp ci Sénégal te Macoumba dama lay wax ñun souvent dañuy recevoir ni ñu jógee bitim réew di ñëw chaque fois bu ñu ñëwee ni ñuy attirer suñu attention suñu dëkk bi di évoluer ñu ne ñii kat war nañ mun a jóg gën ko valoriser gën ko wan sénégalais yi loolu moo wax tax ñu jóg ne ñun fu mu toll nii dañuy jàpp dañuy construire. dañuy wane li ñuy def pour que ensemble bu ñu booloo suñu doole yëpp mobiliser crème bi yëpp def ko au service de l'homme pour ñu mun a atteindre li nga xam ne mooy améliorer le bien-être des Sénégalais. lan moo fay sama bët doon fa maire wala wala jàpp parce que ñu bëri nee nañ bëgg nga mais amoo fitu yëkkati lox. man damay wax ne toujours solution laay nekk pour président de la république. loolu dafa Kaolack ma fa benn ambition bu dul. ambition bu fa président am maanaam moom laay bëgg a jàppale bu nee nii la ma jàppale ko si bu nee nële la ma jàppale ko si kon donc man ma ñëw ne damay taxaw ne Kaolack lii moo fay sama ambition hmm. l'essentiel mooy lépp li nga xam ne nii président jël na ko fa comme orientation dinaa fexe jëmmal ko dinaa fexe dëggal ko dinaa fexe amal ko hmm. loolu mooy sama ambition pour Kaolack bëggoo nekk maire solution laa bëgg a nekk pour président jërëjëf DG kon ma bàyyi la nga tàggoo. ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bëggoon naa nag nga may ma tuuti ci mbas mi ma remercier le personnel sanitaire ñaanal leen ak tout ce qu'ils font et également fii nii comme ñëw naa RFM remercier aussi seen collègue Assane Gueye El Hadj Assane Gueye ndaxte wax dëgg yàlla liggéey bu muy def ci mbas mi rafetlu naa ko trop man chaque suba teel dama koy déglu di ko encourager di wax ne mbas mi nekk na loo xam ne nañu booloo xam ne su ñun ñëpp la mun a dal ñun ñëpp ñoo ko mun a xeex génnee ko si Sénégal di ñaan yàlla na ko fi yàlla yemale et que na yàlla sàmm Sénégal ba nga xam ne vision bi le président am ci Sénégal mu mun ko réaliser maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu nag su dee am na si loo xam ne dëng-dëng la ci wax yi. jërëjëf mbégte la woon ñu toog ak yow doon leeralal sénégalais yi ci benn ci entreprise yi nga xam ne ñoo ëpp njariñ ci réew mi Pape Mademba bi tey moo nekkoon sunu gan tey ci émission yoon wi ñu koy gërëm bu baax a baax. directeur général Sénélec membre task force républicaine beneen alxamis incha allah ngeen ànd ak alaaji Assane mu jërë ngeen jëf. tono kila jeegi samba suusiwaade samba dogata ayde samba dogata